ah waaw mais gars yi presse espagnole bi ñu ngi xas Kylian Mbappé comme pas possible waaye di sang kooku yi di Vinicius protéger Vinicius xaas Mbappé yéen na xaw ngeen a soxor nag presse espagnole lañ taggoon daaw Bellingham lépp xas nañ ko dem kii kii di Kylian Mbappé salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant kii di Marca AS Mundo Deportivo ba ci sport mën naa ni média catalan yi sax dugg nañ ci critique yi di xas Mbappé yéen lu seen yoon yéen te yéen média catalan yéen nag sikk ngeen ñëw jiitale kook Marca Marca moomee nag nee na Mbappé n'a pas impressionné pour ses débuts en championnat Mbappé wanewul boppam ci début foofu ci championnat espagnol Vinicius est parti seul au combat et a échoué Vinicius ko bàyyi mu dem moom kese ci xeex bi te it dafa mujjee échoué ci xeex boobee AS nag nee na le véritable leader de l'équipe reste Vinicius nee na euh, leader dëgg bi nga xam ne moom la Real am muy kan Vinicius képp kundung loolu la wax nee na infatigable et entrepreneur nee na ki nga xam ne du sonn mukk ci terrain bi du doon waaye ki nga xam ne daal moom mooy diriger à chaque fois ko ki di Vinicius Sport nag nee na était actif mais il n'a pas laissé de trace de sa qualité nee nag fay na ko yëngu na waaye wanewul dara ci mën naa ni la nga xam ne moom la mëne foofee ca Real Madrid pour le moment il doit encore se faire une place dans l'équipe nee nag dafa war a wane boppam ba mën a gagné place ca Real Madrid googee lu ko moy daal dana ko ñàkk bu baax a baax Mundo Deportivo nee na une note sévère de un étoile euh, sur trois lui a été attribuée note sur un non mais nag non mais nag benn étoile sur trois moom lañ ko jox Kylian Mbappé Mundo Deportivo yéen la moo ci seen yoon yéen média catalan yi ak sport moom moom daal nee na dafa war a gagné place am Madrid wane wu fa dara yéen wu seen yoon moo leen maam du yëg mooy leen kàddu commentaire ba xam kàddu yi média espagnol yi génnee jëmale ko Kylian Mbappé ànd ngeen ci ou pas en tout cas daal c'est sévèrement critiqué c'est c'est très difficile pour lui pour des débuts seulement tamit nag metti na trop. ay catalan gën la gaan Barça da ko bëgg a jaay mais gën am na lu ko métti nee na loolu yëpp Barça moo ko ruumbalaat dinaa ñëw ci mbiri nu mu demee ak na ak naka la waaye am na keneen ku Barça bëgg a jaay moom mu ne du dem ak ab dee gën actuellement Barça pare na pour bàyyi ko mu dem Ilkay Gündogan peut vraiment quitter le Barça avant la fin de la fenêtre de de de transfert voilà mercato bi di jeex Gundogan Gundogan mën na quitter baax à a moment ma leen laaj commentaire est-ce que nangu ngeen bàyyi Gundogan ou pas te Barça pare na pour bàyyi ko aussi pas euh, encore garanti dara leeragul mais son camp a commencé à explorer les options pour euh, les derniers jours alors que le Barça s'ouvre à laisser Ikay partir ay mën naa ni camp am entourage am ñu ngi jéem a lijjanti ñu ngi jéem a beneen club euh, jamono ji waaye dara leeragul te baax saa pare na pour bàyyi Gundogan Hansi Flick nag dafa wax ne ne moom dafa jàpp ne Gundogan war na mën a toog foofee baax saa moom loolu la gis te it dafa foogoon ne Gundogan na war na toog waaye nee na amee yeneen solution yu tegu ci temps bi bu naree dem mën nañ bàyyi mu dem loolu du problème am mu ngi noonee waaye yamaatuñu foofu Gundogan daal dafa jàpp ne loolu yëpp Barça moo ko ruumalaat pour bàyyi ko mu dem Barça moo ko bëgg a sacrifier pour bàyyi ko mu dem nag lan salaire am bu kawe boobu yi nga xam ne baax da cee bëgg a débarrassé wu moo tax muy jéem a def la tourne du tourne autour du pot pour wane ne moom daal bëgg na te Gundogan mais dafa gis ne ne am na ay solution yu mën a taxaw mu ngi noonee Gundogan nag nee na mosul wax ne dafa bëgg a dem loolu yëpp Barça moo ko rumalaat pour bàyyi ko mu dem ngir salaire bu kawe bi nga xam ne moom la jot a yore kookee ñaan ko mën naa ni euh, Torroque actuellement Barça mu ngi négocier ak Sporting Lisboa pour mu quitter club Barça dem rejoindre club boobee ngeen xamee ko noonu waaye it ki nga xam ne Barça daf ko bëgg a jaami Ferran Torres Newcastle daf ko bëgg te eh, Ferran Torres yëgul ne sax Newcastle bëgg na ko waaye Ferran Torres moom dafa bëgg a toog Barça nee na bëggu faa jóge lan ngeen ci mën ma leen xaar ci commentaire ñetti transfert yooyu ban ngeen bëgg mu gën a dem ñetti yooyu kan ngeen a dem ngeen ah, kenn la ciy choisir. kenn war a football ci aile bi ah keneen ka lu mu nar moom ba xam da koy teg ci baa bu ou pas loolu Rodrigo la sacrifier wala nu muy def démb nag kookee di Real Madrid gis ngeen situation benn situation image ma leen bëgg a wan balaa maa ñëw ci Ancelotti lam jot a wax gis ngeen am na benn action boo xam ne la 87e minute si je me trompe pas joueur kii di Mbappé Vinicius ak Rodrigo ñoom ñett ñëpp ci aile bi lan féetewoo ci benn occasion bu amoon te kenn nekkul woon ci pointe te aile tamit doo fa gis nit pour latéral sûrement mu doon loo xam ne nii action boo xam ne du mënul permettre équipe bi am gagné am but nag ñetti joueurs yëpp nga xam ne ni ñi kenn ki ci aile bi la waroon nekk kenn ki ci pointe bi ak keneen ki nekk ci aile ñoom ñetti ñu nekk ci même aile bi nga xam ne fa la bal bi jëm direction bal bi c'est des choses yoo xam ne nii c'est un peu te erreur la yoo xam ne nii peut-être Angela dina ko rectifier foofu moo lay firndeel que ni daanaka ñoom ñett ñëpp seen i poste préférentiel ci aile gauche bi la malgré Rodrigo football na aile droite daanaka moom la faral di football sax Real mais Mbappé ak Vinicius surtout ñoom ñaar ñëpp ci aile gauche bi lañ leen gën a ràññee ci la ñuy gën a nekkee tamit en forme gën a nekk à l'aise Ancelotti nag génn ba ne les postes de mbappe et Vinicius un seul d'entre eux jouera sur l'aile nee na kooku di Mbappé wala kenn rek kay ci aile gauche bi. te nee na dina choisir kan la war a doon maa ngeen laaj ci commentaire bu ngeen doon Ancelotti bu ngeen doon choisir kan ngeen di choisir entre Mbappé wala Vinicius ci aile bi kan ngeen di choisir sacrifier keneen ki point bi moom en ce di Mbappé wane ne actuellement point dina xaw a difficile foofee ca Real Madrid nee na ce n'était pas match Ancelotti nee ma du woon match bu baax nee nous devons avoir plus d'équilibre surtout défense bi ça reste beaucoup nee na nag euh, dana war a am tollale ca équipe boobee défense milieu attaque lépp nekk impeccable nous ne sommes pas euh, contents euh, aujourd'hui nee na kontaan ñu kontaan ñu tey démb mu ngi noonee nous aurions pu faire mieux mais nous pouvons attendre apprendre beaucoup des choses de ce match et résoudre les problèmes nee nag match la boo xam ne nii daal kontaan ñu waaye dinañ ci jàng lu bëri bëri pour di def ci championnat bi mais aussi ci poste yi peut-être. bu dee 4-3-3 moom la ñuy continuer soit bu dee Mbappé aga wala Vinicius kenn lay jël aile bi xanaa mu teg Rodrigo pointe peut-être jël Mbappé teg ko aile droite bi te loolu football na ko Monaco mais gëj na ko football ma nag en tout cas wala soit mu teg Mbappé ci baax bi indi système bi mu doon indi à fois passé saison bi passé comme Bellingham comme faux neuf électron libre parfois partout tegaat Rodrigo ci aile droite bi. wala soit nga teg sacrifier Rodrigo teg ko ci banc bi jël Mbappé teg ko ci aile gauche aile droite bi mais Rodrigo il est décisif ces temps-ci li Bellingham mënu koo toog loolu loolu daal mooy wax ci en tout cas critique bi kaa na côté boobu Ancelotti peut-être trouver solution ñu jéem a xool qu'est-ce mu ngi noonu gars yi ma leen xaar ci commentaire nañ leen ko gisee jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yéen bi